ñu ngi leen di nuyu di leen baalu àq tey baal di ñaanal sëriñ Muntaxa xalifa général Mouride yi sunu borom yàggal ko fi te may ko wér ak mboolem jullit yëpp ñaanal sëriñ Ibrahima Dior Amar ak mboolem askanu Darmanko taalibe yeeg jullit yeeg yëpp sunu borom yàggal leen fi di am bu baax teewaat fii ci plateau. mbaa entretien bu may defal chaque année ak waa Sénégo TV ba ñëpp bàkkee ma ci Sénégo moom Sénégo sëñ Moustapha Amar borom Thiès la kon nag macha allah euh, ñu ngi am mbégte bu baax ginnaaw bi nu jógee ci màggal gi yàlla def euh, gu ren gi dàq màggal yi yi jotoon a jàll ndax mbirum sëñ Tuubaa noonu la amul tànk ginnaaw ndax kat sëriñ Tuubaa moom kenn la te nii nga xamante ne moom la mbokk taalibe yi taxawoo kon ñu ngi ci am mbégte bu baax a baax a baax a baax a baax euh, année dafay gën a neex day gën a yokk ca kaw donte ni am na ci sax xayam na yun ci seetlu mooy toujours euh, ndox mi nga xamante ni day manqué chaque année te loolu war nañ cee taxaw di xool lan mooy saytu bi ak lan moo waral lool beneen bi si desit mooy. bariwaan na foo xamante ni tey jii da nga fa dem doo fa am réseau wala mbokk taali bi di la woo wala yu demee noonu te lépp ay jàngat la ak ay seetlu yoo xamante ni seetlu nanga ko ci màggal buñ ko taxawee di ko wax nag dafa fekk ne ñun bu wax jotee rek dañuy dëpp micro ñuy wax euh, dara manqué wul ndax euh, li ñuy faral di wax rek na nga na nga na nga na def berne gan yi li ko commencé ci euh, ginaar ba ci ba ci gilem waaye daal am na ci ay manque yoo xamante ni lu mel ni ndox mi ak yu demee noonu te loolu war nañ koo taxaw xoolaat ko bu baax a baax a baax a baax. Euh, question bu am solo nga nga ma posé parce que ñun moom dañuy fekk li nga xamante ni jaaduwul toujours ci la ñuy wax ci la ñuy dëpp micro. ki nga xamante nag dafa jóg euh, di def màggal gi dañ ko jàppee folklore wala ñu di ko def du défilé de modd sëñ bi dafa wax ni nan ko nan si jaamu yàlla jàng ci alxuraan. jàng ci xasida di ci berne mais nag euh, folklore bi ëpp na lool ndax euh, défilé bi de mode la ko ñu bari jàppe ak euh, li ñuy wax ay takkaay ki yi colog yooyu naam c'est bien loolu lépp mbegte lañ ci àndal waaye ak yàq ak yenn yoo xamante ni jaaduwul moo ci ëpp ndax koo gis ku koy def ku ne di nga gis ni am na sa moroom mu la ko ëppale fopp te defu ko bu nu cité ci yeneen dëkk yi yële yële yële yooyu sax dafa sori pour di dem ay Dubaay nga xamante ni seen i duus ak seen yëpp dañ koy climatiser te doo leen gis ñuy def yenn folklore yi mais foofu dafa sori même bu ma indee fii ci Sénégal rek bari na ci ñu yor alal te gisoo leen ñu def ci ni ñu si def un certain le première dame rek mën naa cee jaar Marème Faye Sall da ngay gis euh, li nga xamante ne mu ngi koy jàppale ci askan wi. te pourtant moom mooy première dame bu ko neexoon euh, masque or wala nangam wala yu demee noonu cravate or mu def ko mais yooyu amul benn benn benn benn njariñ ni ñuy jàppee màggal gi bu jotee ñu koy wane loolu amul njariñ waaye nag damay gis ni euh, yéen sit internet yi tamit am ngeen ci part de responsabilité naam yéen sax xëy na luy doxal seen liggéey ngeen nekk ndax it plus de vues plus de j'aime plus de partage ngeen am ci seen mbégte am ci seen seen poste mën naa wax donc kon yéen ci loolu rek ngeen di xool waaye. jaaduwul tey jaaduwul ëllëg ndax yaakaar naa image boobu ngay wax noonu gis naa ko ci ci réew mi dëkk certes sëriñ waaye teewul ñu ngi xool ci xew ci ci réseaux sociaux bi masque oo rek cravate o rek sabar yaag ak bongo yaag yooyu yooyu moom folklore la du daray màggal moom loolu moom du dara du dara du dara du dara ndax soo ko defee gis nga koo xamante ne moo la ëppale alal fopp te defu ko première dame Marème Faye Sall mënoon na ko def keneen ak keneen keneen mënoon na ko def ainsi de mais defuñu ko loolu ñu koy jël di ko defalee am na fi ay sancaana yi ca biir kaw ca ginnaaw ay aali yi ak yeneen yi yàlla xam ne pour ñu am lu ñu lekk sax ay jafe-jafe la dëkk yooyu nga xam ne ay sancaana leen nag jël leen loolu nga dem dimbali leen yaakaar naa man pour man moo ëpp njariñ que def yoo xamante ni da nga ciy bëgg li ñuy wax buzz wala danga nga ciy wanewu wala wala yu demee noonu nit ku nekk nag yaa xam na ngay sante ko ni ma ko waxee woon ñoom nag seen i seen i mbir la waaye dugaluwul daal du lu rafet daal waaw du du lu rafet bu baax a baax a baax a réseaux sociaux yi nag am nañ ci part de responsable waaw maanaam tey moom manque euh, ni ni ni ndox manqué sax dafa dafa dafa dafa dafa ñaaw lool dafa yéeme ndax fii ci kër Serigne Aliou Amar jàkkaaroo jumaa ji nii deux cent mètres daanan wax ni daawuñu manqué ndox ndax bokkoon nañ ci taux bi nga xamante ni wax dëgg yàlla ñun fii kër gi moom centre bi daawul manqué ndox waaye at mii manqué nañ lool te gis nañ ni moom ay jafe-jafe am na ci chaque année nag ofo rek ak yeneen ak yeneen génn wax lu mel nii problème bi nag moom doo xam fan lay jóge ndax chaque année bu ñu waxee lu mel nii nga gis ñoo xaman ne duñ am ndox ni ni ni ni ni fii ñëwee gan yi ni ni ñëwee metti na lool bari waat na ñoo xamante ne dinañ ñëw ba dem mais pour ñu am soowu sangu wala lu satala bu ñu jàppee sax fu ne lañ fay dugg te loolu moom vraiment ah, ñaaw na lool lool lool rafet luñ ko te wax dëgg yàlla war nañ cee taxaw ñi nga xamante ne ñoo yore ci wàllu màggal gi maanaam ñi nga xamante ñooy saytu lool war nañ cee taxaw bu baax a baax a baax a baax xool loolu fan lay jóge ak lan mooy mooy mooy saytu bi ak lu koy waral ak loolu parce que chaque année bu ñu génnee loolu ak lan ñuy wax mbirum mbirum mbirum kii beeg Touba sa kanam nag macha allah jàmbaar lan ñu ngi góorgóorlu euh, jamono yi la jàll ñu ngi taxaw ci wàllum forage beeg yooyu mais ndox mi daal sayt bu dëgg dëgg dëgg fi mu jóge war noo xool lan mooy problème bi daal. Hmm. ci wàllum. waaw je vois donc xam nga chaque année état dina wax ni def na ci nangam ci assainissement waaw mais du ko day taa tubaa sa kanam am na ay tali ak yenn rue yoo xamante ni ñu ngi ci noonu fu wax dëgg yàlla gis naa ren am na ci ay ay changement ndax bari waan na foo daan dem fii pour nga jaar fa problème la. pour nga jaar fi problème la te loolu wax dëgg yàllam kon Touba Ca Kanam ñu ngi leen ciy lancé message ndax jàmbaar lañ ci bu baax a baax a baax a baax parce que bari waan foo xamante ne da daan taa euh, fu bari foo xam ne pour ngeen ñëw fa sax yéen site internet yi sax problème la daan doon pour ngeen ñëw fa sinon dañ leen di envoyé ay localisation te pour ngeen egsi fa rek foofu day taa wala yu demee noonu rawatina nag ren màggal gi nekk ci euh, euh, moom leneen la waaw euh, xam nga mënuma wax ni état bi defuñu fi dara donc mënuma wax ni état bi defuñu fi dara parce que ñi nga xamante ne ñooy suñuy kilifa ñi nga xamante ne ñoo wàllu màggal gi chaque année danañ def CRD danañ taxaw wax ni état bi lii wala nangam wala yu demee noonu donc kon état kenn waxul ni defu fi dara kenn waxul ni état defu fi dara ñu ngi ñu ngi ciy jàpp ñu ngi liggéey wax dëgg yàlla mais nag euh, Touba moo nan bàyyi xel ni mooy deuxième ville du Sénégal. te yàlla dafa def euh, ci ginnaaw dakaar ci li fi teew ci ay doomu aadama ak li fi nekk ci doomu adama amatul feneen fu mu nekk waaw donte ni ñu ngi jéem nag di ci dox waaye war nañ di ko di ci gën a góorgóorlu bu baax a baax a baax ndax ni muy ni ni muy ni muy taawee fii noonu lay taawee Dakar kon problème mu ndox ay assainissement yooyu Sénégal ñoo am problème mu problème mu assainissement yi. nañ benn image bu lay passé ministre de l' intérieur ñëw fi demoon visiter ko mooy fële ca ca Kër Niang ba ban wax ni yëf yi dafa dafa dafa génn foofu li ma ci li ma ci lancé mooy ñu ñu ñu demaat ba ca ca ca fa nga xamante ni tey jii ëpp ëpp àll la manees na wax ni wala ay sancaan wala ay tund ñu defaat fa leneen lu gën a yaatu lool parce que bii fi ne dafa yàgg lool lool lool ba tax na ndox mi yu ci bari ak lu ci bari foofu lañ ko daan def directement mu dem di fa di fa di fa saytu maanaam wàllum ndoxum mii nga xamante ni mooy ñëw ci ci taw bi yu ci bari foofu lañ daan dem bu demee nag ba yàgg ba ëpp doole euh, day day dafay daal di toj te bu tojee day daal di dugg ci ci ci kër yeeg yooyu ñu ñaan daal euh, comme ni ko sëñ bi waxee rek ni ko sëñ Muntaxa di waxee daal ñuy ñaan suñu borom di ñu di ñu dimbali ci ci ci ci yu mel noonu ba euh, yenn musiba yi ak yenn balaa bi bañ fee bañ fee dugg daal. macha allah waaw xam nga man nag. Euh, l'homme de média lan may dàkkantele sëñ Moustapha Amar borom Thiès l'homme de média ñu ngi may dàkkantele aussi euh, nit koo xam ne bu wax jotee mu wax raar naa si image waaye téewul euh, lii nga xamante ni mooy màggal gi bu jotee war naa cee ñëw nag en tant que jeune chef bu bokk ci réew mi di doomi Seydina Aliou bokk ci askanu man ko ñu xame ma ci média ah, danan ma wax xamit bu jotee bu fi dara amee wala dara ñu jox ma dëpp ma mikoro waaye du woon dara du li ñuy wax du jikko jamono la dama defoon ci déviation bi rek nekkoon ci yeneen moo taxoon moral <laughs> Macky ah Macky de loolu de xam nga mënaguma faa yegg si wax ndax man eggaguma ci Macky mbaa ma nekk ci beneen parti en tout cas daal maa ngi ci déviation bi waaw ngi ci déviation yi waaw comme lii daal li waraloon wax ji daal mooy euh, wéru waru màggal gi te waaw gi daal ci la noonu wax ndax dem naa ci état am dem ma ci état moom en tout cas daal maa ngi ci déviation bi. waaw euh, nekkuma ci fenn mais pour le moment maa ngi ci ci déviation bi Macky wax dëgg yàlla boo leen déggee ñuy dem naa fit bu mu leen jaaxal boo leen déggee man dem naa feneen bu leen jaaxal <laughs> ndax du jikko jamono la. waaw xam naa li may foofu daal li ma ciy tëjee mooy nit ñi nanu nanu nanu gën a nanu concentré wu d' abord ak jàppale nit ñi ci eh, dund gi maanaam dund gi surtout. buñ ko bàyyee noonu rek fi mu nekk dund gi cher na trop waaw dund gi moom ku ñu cherul rek waxoo loo xam dund gi cher na trop trop trop fi ñu fay li ñu fay lancé foofu dañ fiy lance la président maanaam li concerne dund gi ay ceeb suukar te nit di ko soxla muy quotidien yi nga xam ne chaque jour danga koy soxla ñu wàññi ko bu baax a baax a baax a baax a baax ah bu continuer nii nag li daanu daan jar saakub ceeb yokk suukar yokk buñ ko continuer nii rek bu noonu lay continuer te dafay metti ci ki nga xamante ni dafay daan doole waaw loolu it wax dëgg yàlla état na ci dimbali nit ñi bu baax a baax a baax a baax chaque jour bu nu soxlaa nit ñi ñu ngi ñu ngi lay dem ci ñoom wax yàqateb xaalis fàtte moom nit ñi nit ñi nag euh, wax dëgg yàlla am dund gi cher na euh, jëfukaay yi daal metti na lool lool lool lool it nag wax dëgg yàlla euh, foofu dama ciy lancé politiciens yi bon seeni i campagne ak seen yëpp nañ ko doxalee ci ci ci dund gi bi ñu wàññi ko bu baax a baax a baax ngir. askan bi loolu daal la amoon ci loo xamante dama koy dama koy lancé à part bu dul euh, sant nag euh, sëriñ bi ci discours bi nga xamante ni def na ko sëñ Mountakha Mbacké yàlla na ko fi suñu borom yàggal te may ko wér sëñ Mountakha ku duglu discours am xam ni macha allah yenn nit ñi ci ndaw ñi euh, réseaux sociaux bi nag bari na dinaa ci dikkaat loo xamante ni dana koy faral di yàq wala lu muy faral di def. waaye gën leen cee gën a considéré te ngeen gën a sax ci yàlla jaamu yàlla gën a sax ci gën a góorgóorlu euh, loo leen ko mën a defee rek kiw leen dara ndax fii kenn dëkku fi ñëpp ñibbi lu waaye mën a def nag lu nekk rek na ciy séntu bu baax a baax a baax suñu borom ëllëg loolu daal la amoon ci lu may wax di ñaanal bu baax mbokku julli di euh, ñaanal Seydina Aliou mi nga xam ne mooy sunu waajur ginnaaw yàlla bu nu amee tey jii même pas 200 mètres ak grande mosquée de Touba moom la di ñaanal mbokki taalibe yi nga xamante ni tey jii bu màggal jotee ñooy ànd ak ñun famille Tall wax naa ko mën naa ci cité Cheikh Tall mi nga xamante ne rëy jëf Tall moo nekkoon euh, waajuram bokkoon ci mag ñi àndoon ak signal bu jotee askan bépp ñëw ñooñu ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax di gërëm ñëpp tey baalu ñëpp nag di baal ñëpp ci di kii bi di remercier nag Sénégo Sénégo euh, site la boo xamante ni macha allah gàcce ngaalaama ñoom donte ni média bi yëpp nag wax dëgg yàlla war na leen a delloo njukkal ndax. bu bu yëf yi eggee fi yenn fi ak image yenn fi ginnaaw yàlla média ci la waaw mooy site internet yi ngay gis yi tey jii bu demee ba ñenn ji di mën a seetaan say kii wala nangam rek kon ñoom am nañ ci nan leen jox ak jox leen gëdd jox journaliste yi gëdd di leen toppatoo bu journaliste ñëwee sa kër moo xam ku mën a doon parce que man wax dëgg yàlla ci màggal gi damaa recevoir ba tey léegi-léeg ñun la ñun la yow ñun la diw ñun la clic ñun la kalak ñun la point net ñun la point com ñun la point sn dañuy baree baree baree tellement da nga leen di yërëm nan leen di toppatoo di leen joxi xéewal di leen yeewi di leen yeewi surtout kër sëriñ bu nu dem leen di jox ñuy xéewal ñuy ñuy ñuy ñuy ñuy di leen yeewi di làmb seen poste di leen jox di leen jàppale bu baax a baax baax a baax a a baax ndax bu nu ñëwee dëkk la dëkk la micro rek c'est parce que euh, am na lu ñu bëgg jaay sa am na lu ñu fa bëgg am na lu lay jàppale yow tamit kon nag wax dëgg yàlla ñu na nanu nan leen jàppale bu baax presse bi jox leen gëdd bu baax a baax a baax a baax policiers yi nga xamante ne ñoo fi nekk it wax dëgg yàlla ñu jox leen parce que euh, nii ñu organiser màggal gi ci wàllu màggal fi mu nekk tey jii ni nu tegee ci yoon. tey jii policiers yi bu buñ fi amul woon GMI yi buñ fi amul woon dana dana ñaaw lool kon ñooñu it wax dëgg yàlla nan leen jàpp te xam ne soxorun dañuy jàppale askan bi jàppale euh, circulation bi ngir ñu mën a dellu màggal yàggul. ñu ngi sant bu baax di remercier bu baax Sénégal mi nga xamante ne moo ji dëpp micro pour man Sénégal mooy numéro un <laughs> asalaamaaleykum a rahmatullah